Tivaouane TV di biddéew bi leen di gindi ci xadaratu ak tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de la Assalamu alaikum. sunu mbokk jullit yi nekk ci réew mi ak ci biti rew fan yele ñu genn Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes sàkk woon na ci jullit yépp ñu def ay ñaan jublu ci delloo ci sunu bopp yàlla ñaan yàlla mbas mi dal ci réew mi ak ci biti réew yàlla teggi ko xalif général di Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour mooy dellusi di sàkku ci képp kuy senegale moo xam jullit wala doo jullit nekk ci réew mi wala nga nekk ci biti réew nga am nga sàkku sarax man na doon ceeb suukar xaalis ndawal goo xam da nga rey gàtt di ko wala nga togg ay ñam lépp nga man koo jox ñi ko aajawoo sarax bi nag amul lim ku man def sa yu kàttan nga jublu nga jublu ci sant yàlla sunu boroom delloo ci sa bopp ñaan yàlla mbas mii mu wàcce ci réew mi ak ci àddina bi yëpp yàlla teggi ko sëriñ baa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan lii ñu am ci réew mi yàlla teggi ko bu paasee mu def ci dëkk bi jub jàmm ak salaam président la république yëkkati na kàddu jëme ci askan wi le ministre de la santé Abdoulaye Diouf saar yëkkati kàddu mook équipe bi mu àndal yëpp ak corps médical bi yëpp pour waxtaan ak askan wi ci ñu toog ci seeni kër lu mën la ñàkk ci farata nga doxe ko te moytu nuyoo bi saafonte bi ak accolade bi waaye nag ñu moytu ndaje mi yi nga xam ni ñu bari dañ fay dañ cey ñëw gis ngeen kilifa diine yi ni ñu yëkkatee kàddu jëme ci ndaje yi nga xam ni ak yin daan def yoo xam ni faratas yàlla la waaye président la république ak équipe ak ministre de la santé ak équipe am ñi ngi naan ñëpp toog rawate nag yéen ñi nga xam ne yeneen nekk ci région yi ci luuma yi di ci daje ak yéen ñi nga xam ni yéen jóge ci dëkk ak dëkk ngeen toog seen bërëb gi leen wax te ku ci nekk sàmmoon teg li nguur wax bi ci des covid 19 bi nga xam ni mi ngi lëmba réew mi ñi ngi ñaan ñëpp toog seen kër ndimbal yi góor gi wax dinañ ci egsi incha allah ba ku ci nekk jot ci la nga ca war a jot waaye nag képp ku tukki gëj ci réewum ba dugg fi ak noo ci mën a duggee te nu tëj frontière yépp fa nga ñëw na ko say bokk wax wala nga dem yóbbu sa bopp kër docteur wala bokk nga wax ko kilifa ya fa nekk ñu dem jëri ko seet ndax am na doomu jàngoro bi wala amu ko ndax wàllante bi day indi loraange te wàllante bi day indi loo xam ne bu ëllëgee ñi yor waa kër doktor duñ ko mën a maîtriser ndax raw na fépp feebar bi nag fépp lay nekk fépp lay dem